nit ki boo yoree lu baax lu mu baax baax baax te jàppaloo ko li mu euh, yore moom itam su boobaa dafay doon lu doy waar Sëriñ Tuubaa jàngale na jàngale mu mel noonu ci Jolof kër gu mu fa doon sanc bi ñëwee dafa wax ne nañ ma seetal ñetti dëkk ci wet gu nekk ñu dem wet gu nekk ñu seet ci ñetti dëkk mu ne nañ ma xoolal naka lañ takkee seeni puj biñ demee ñu ñëw xool ne ko ah ñoomkat defuñu defuñ pucc waaye dañoo mocc li rek mu jëm kaw mu ne defal leen ma noonu samay samay nekk mu am ñu bëgg a ndax pucc moo gën a rafet mu ne leen ay nit soo yoree lu baax bëgg ñu nangul la sa lu baax da leen di nangul la ñu baax la njëkk waaye soo ñëwee wan leen ne leen maa leen gën wala maa leen gën le duñ la ñemee duñ la dugg te buñ la duggut jegewuñ la duñu mën a xam li nga baax le